maa ah, ah. euh, ngi kii dina ko jàpp kii da koy jàpp génne ko. ma kii da koy kii da koy ko. waaw da koy jàpp génne ko. se ay se dañ koy jàpp génne ko du ko jàpp xaaral rek xaaral rek waaw waaw. <laughs> la É, equipa de ona, meu papo piscina. Papo conhão. Doutor vai piscina. Bulto do turam. Bulto do turam. Bulto do turam. Bulto do turam. Dan sama tumbi pour 30 000. Dan sama tumbi. Tribunal. Tribunal jam. Da nga santé. Waa. One.